abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV Eh, dal leen ak jàmmu fitna ji daras daras yi fii ci réewum Sénégal mën nañ kat yamatul lekk ci li nga xam ne moom mooy biir réew mi jéggi na ko nag jëm bitim réew mën nañ kat ni kiy démb ba tey ñu daal di gis li nga xam ne rek moom mooy ay mbir yu nga xam ne rek yu doy waar la rawatina nag ci ay autorités yu nga xam ne rek yu ñu miin loola fii ci biir réew mi na nga xam ne nag noonu lañ leen di utiliser ci jamono bii ñu toll nii nekk lu nga xam ne rek lu doy waar la gannaaw nag ni ki tey ba ñu daal jot rek ay xibaar yu wane ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi dafa mel ni dañoo gën a mer tax nag ñu daal di topp kër autorité yi mën nañ benn par benn saccagé ko yàqate ko yi ñu taal ko bi la yoon nag kër ki nga xam ne rek moom mooy Aly Ngouille Ndiaye mën nañ ne daal di nañ koy taal bu fekkente ne tamit foofu la ca diwaanu France kër ki nga xam ne moom mooy président de la république ci ay xibaar mën nañ ne kat daal dinañ koy jotal taal loolee nag nekk mbir mu nga xam ne mën nañu moom mooy guleet fii ci réewum Sénégal mu daal di fii am ne manifestation yi mën nañu depuis ba mu commencé ba tey ci biir réew mi la yemoon wante kat bi la yoon mu daal di jéggi li nga xam ne nag moom mooy ay frontière rek loolee war a wane kat beneen xar kanam bu nga xam ne rek mën nañ ne dossier Sonko Adji Sarr daal dina koy jëlaat ci jamono bi ñu toll nii daal di tourné nag daal di utali bitim réew gannaaw nag mën nañ ne opinion nationale internationale ñoom ñëpp rek daal di commencé di yëkkati li nga xam moom mooy seen kàddu comme ni nga ko waxee woon rek France 24 mën nañ ne depuis booba ba tey ñoom it teggi wuñ seen i caméra fii ci réew mii di Sénégal loolee kat waral jamono bi ñu toll nii mën nañ nekk benn bët bi nga xam ne rek moom la ñuy xoolee Sénégal mooy ne kat fitna daal dina fi yeewu fitna joojee tax nag ay doomi aadama daal di si fii ñu leen di toppal ay xibaar yu wér wóor